abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne dal leen ak jàmm seen chaîne bii di FTTV Sénégal ki di Didier Drogba si match bu war a jaatee ci diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal daal dinay jël xaalis bu weex tàll daal di koy teg ci taabul bi ngir motiver joueur Côte d'Ivoire yi ngir ñooñee tey ñu dal di mën a gagné équipe nationale bu Sénégal. si li mel nag kii di Didier Drogba dig na joueur Côte d'Ivoire yi xaalis bu bëri bu ñooñee fexe ba gagné équipe nationale bu Sénégal xaalis boobee nag moo ngi toll ci 40 millions par jour bu fekkee ne équipe nationale bu Côte d'Ivoire gagné na équipe nationale bu Sénégal li ni mel la kii di Didier Drogba daal dina ma amal tey bu fekkee ne waa Côte d'Ivoire gagné nañ équipe nationale bu Sénégal ne dina jébbal bépp joueur buy li buy football biir Côte d'Ivoire 40 de francs CFA. abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça se ne ngeen di